gars yi bu ngeen ko mosee gis ci gàmmu li Aziz Ndiaye defaat ren la ngeen ko gis pariwul Aziz Ndiaye ci boppam sax moom mi jiital nag yi da ngeen ko dégg ay kàddoom ak i nagam ak li nga xam ne mooy xar yoo xam ne daanaka tey jii record la ci baaturaat ci wàllu xar yoo xam ne yóbbu waat na ko ci dëkku sell ba Aziz sa nga Jolof daanaka cabion ya yeb nan ña nga jëm si Tiwaawan moom Aziz di ngeen ko diglu ak oustaz Modou Fall mi nga xam ne daanaka bari na kàddu yoo xam ni yeb bi nañ ko ci télévision bii di Aladji Malick TV télévision bii di Aladji Malick TV daanaka fi mu toll nii gàmmu gee ko ñor wala bokk na ci li nga xam ne moo ko gën a ñor ngeen gis ko noonu xar yaa ngoogu ñu wëtal leen def leen ay gétt di leen yeb ci camion yi di ngeen diglu oustaz Modou Fall ay kàddoom diglu Aziz mi nga xam ne moo jiital ah, xar nag yi la mu wax lépp ngeen dégg ko ci làmmiñu boppam ngeen xam ne dëgg rek a wóor ngeen xam ne jëf ju rek a wóor jàmbaari Tiwaawan ji liggéey bi mu def xanaa lenn ngeen man ma jàpp ni mooy li mooy ngeen ñaanal ko jàmm ak tawfiix gudd fan goo xam ne daanaka am na ko kon ñu déglu Oustaz Modou Fall a topp ci Alaaji Asis Njaay hmm. guddal nga liggéeyal seen Aji Malick yal na la ko Aji Malick lebal nga a nag leer na ngi noonu Daara Jolof ñu fas yéene nag dem dugali leen ci camion yi yóbbu leen Tiwaawan incha allah waaw nagu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi noonu barke Seydi El Hadji Malick aca ila Tiwaawan Thank you. mbir maa ngoogu yéen a ko déggal seen bopp yéen a ko gisal seen bopp nag yi 10 millions sax am na ci biir gétt gi mbir maa ngoogu ñu indiwaat ko en exclusivité ci digg àll bi Aladji Malick TV seen télévision bi nga xam ne daanaka lépp yoo xam ne jëm na ci lu ngeen war a xar xar yaa ngoog doon ay gétt yoo xam ne